Thank you. salut chers internautes yi amis fidèles de Sénégal 7 asalaamaaleykum yéen yi nga xamante ne ni yéenay di saaxaw di suivre seen chaîne bii di Sénégal set mbégte lay doon saa su bu ñu jàkkaarlook yéen waaye mbégte lay doon aussi saa bu ñu dem di leen xolo xolandaan yi nga xam ne ñoo nekk suñu réew ba tax na tey nañu am mbégte jàkkaarloog koo xam ne kenn dootu ko présenté waa Sénégal koo xamante ne nii kenn du ne ko lu tax nga way wax euh, da di doomu géwël kooku nag du kenn ku dul euh, Waly Bambey du ma ne Waly Ba man du ma ko man ko tuddee Waly Ba Mbaye Waly Seck laa koy tuddee ndax ñoom ñaar benn lañ du ma def lu nuyu ko bàyyi ko nuyu internet yi balaa tàmbali Waly noo def. jaaraama maa lay fay. yaa ngi euh, ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah doo nuyu sa sa sa sa sa fans yi. suma fans yi yëpp ah. Mhm. Euh, di am contentement bu baax. Mhm. Euh, ci invitation bi. Mhm. parce que yow moom sa émission dama koo bëggoon yàgg ñëw. waaw dawloo nga ma ba ma sonn non non non. te ñun ñaan yàgg bokk Bambey. <laughs> non yow sama xarit nga dawloo mu la xam nga rek mhm. temps bi rek mais mooy loolu suma nit nuyu ñëpp daal. macha allah waa Sénégal maa ngi leen di nuyu. macha allah man du ma la du ma la laaj lan moo la dugal ci way parce que xam naa ni doomu géwël ga euh, macha allah mais kañ nga ñëw kañ kañ nga euh, laa ñëw. Mm. démb laa ñëw. lu tax nga ñëwaat. gaa yi li yaa ngi leen di bëgg a dëggal li ñuy wax de que léegi da bàyyi Bambey. Mm. ku ñëw démb. da tabaski rek dawaat ñëw. non démb laa ñëw. waaw ah, xam naa loolu xoolal démb ak léegi ak tabaski ak léegi. waaw mm-hmm. ah, xool. yàggut de. non non yàgg na kañ. bu nu tabaski woon ba ca suba ga ma ñëw. Mm-hmm. ñu mën a wax wala ba sa ginnaaw suba ga. Mm-hmm. mais damaa toog waroon a dem Zénith loolu moo tax déw ma. da waroon dem Zénith. waaw. la ma tax demoo. toog Bambey rek ndax namoon nañ ma te aussi tamit fa dëkk. Mhm. waaw faaw ma jox sama dëkk liñ bëgg. Mhm. toog fa xam nga mhm. kilifa yu soxla ma xam nga ma am feneen ak feneen yu ma doon dox am yu ma doon dem war a dugg ci kër yëpp. ndax dama faa bëri ay am di jàmm. bëri fay soppe. ma war a dugg fépp porte à porte yëpp. mais gis waroon a dem fii ba États-Unis sax damay toog ak ñoom. ndeysaan macha allah mais gis nañ bureau bi nga indi Bambey jouru tabaski. waaw gis nga mhm. programme fa am yëpp ak yi ma fa dóor yëpp. non jouru tabaski bi ngay julli ji. waaw jouru tabaski euh, bës boobu bës boobu est-ce que attanoon nga ko waal waali. bës moom amul lu mu ci dut attan. Hmm? waaw su ma demoon ba Zénith feesal saal ba ah du tee dama koy attan. kon xalaat nga dem Zénith. man maa mel noonu dëkk Zénith. non Zénith sax moom xam nga rek. day xaar Zénith sax. mais fii ba Bercy mooy loolu. pardon. fii ba Bercy. Waly Bamba yow xalaat nga tëgg tëgg tëgg Bercy. waxatuñ lu mel noonu. mais Waly wóolu nga sa bopp nag. moo. faanaa la rek. jéey jéey lay cadré sa da laa mujj. faan amul fenn fu ma mënta taxaw. macha allah ci àdduna. Mm-hmm. Mm-hmm. mën naa nekk fu ne mën naa taxaw fu ne. su mm-hmm. xoolal un million de personnes bu taxawoon fii. Mm-hmm. aw ma lu may tiit aw ma lu may raf. Mm-hmm. damay xam ne man yàlla moo ma tollalee noonu. ndeysaan mais lan moo la may courage boobu. loolu suñ boroom la rek waaw su ma demoon ba pale ni may toogee fii noonu laay toogee foofu. waaw parce que gis nañ la bi ñu la invité 2S ni nga nekkee à mm-hmm. l'aise. waaw am na yoo xam ne sax euh, maa ko dut bëgg a tontu. dëgg la waaw maa ko dut bëgg a tontu ndax man noonu laa mel quoi. yàlla damaa bindee ba damaa yaru mais mag am na nooy waxee sax su ma la tontoo doo fi ci réew mi. Mhm. ndax émission boobu am na yu fa amoon xam nga. kon moom bëgg sa émission neex ngay wax ay moment bi la bi la bi sa rasta yi dafa feeñ xam nga xam maa ngi jàkkaaroo yow yaa ngi toog ni yaa ngi gis samay rasta. Mhm. xëy na gisoo si xëy na ay ludul li ma ciy def produit yu neex yi ma ciy def. Mhm. ngay gis ñu may jox ay. gàmm de cent mille da ko waxoon pour fo. mais su ma neexoon foofu. xam nga moom pataa la. Mhm. mën naa ne ko euh, euh, yaa yaa yaa ngi xeeñ. Mhm. wala mën na ko sa poxtaan yaa ngi may xeeñal wala yooyu mais dama xam rek. bàyyi mu mhm. sedd. da ngaa fair play. non dama fair play bàyyi mu sedd. waali sax day fair play na ko bàyyil soo biir te moom gaayanu sa waay la moo tax. mu bàyyi mu sedd. yow sax sa gaayan la. waaw da doon fo rek. non sama waay la. mais nay wàññi soo biis bi quoi. mais nan nga dundee confrontation boobu jour boobu euh, parce que gis nañ fa say moroom yu fa nekkoon tamit mën a way loolu comme yow nan nga ko dundee ah mais kenn feeñut bi ma taxawee moo wóolu boppam nag ah? ah, gaa yi bu leen waxee kan moo gañee Wally Bambey rek ngay dégg de mhm. Wally Bambey Wally Bambey Wally Bambey Wally Bambey lañ bëgg kon mhm. Sénégal mën lañ bëgg te loolu la yàlla dogal kon jeex na mhm. mais dañuy wax ni yow say way da nga ci boole comédie ñu ne yow li ngay comédie moo ëpp quoi. waaw waaw waaw waaw. da ngay toppandoo waali gaa nduroo ngeen. et tout mais da nga ci boole comédie. loolu loolu lan moo ciy say tontu. waaw loolu am na mais nag gis nga ni ma def Bambey. Mhm. bi ma demee Tabaski gi. Mhm. Thiès tamit gis na ni ma ko def. gis naa ko. 100 pour cent yi tamit yi doon am Golden ak euh, fee euh, Almadi. gis nga ni ma koy def ñu bari tax ñu dem sax. ñu bëri maa tax ñu dem. Mhm. waaw ñu bëri tax ñu dem foofu. Mhm. te dañ may laajte. Mhm. waal deux waal deux waal deux day ñëw la golden day ñëw la golden. fees dell Dakar gépp fàq ñëw. waaw bu ma doon dem grand théâtre sax. ñëpp ñëw. mais jour émission boobu tamit ñu gis ni euh, ki nga xamante mooy Wally Seck euh, bi ñu wanee vidéo moo ngi wax ni euh, Wally Wally Bambey moom moo jël buzz bi bi nga déggee loolu lan lan nga sentir. est-ce que xam ne mariage. Mhm. day xam ba xam loo ko waxut. xam na ma bu baax. Mhm. donte ay ay buru nii nii mais am na fu mu may yëgee. faneen fudut ci ay ci ay wax ji ñu ñi comme comme fan bëri na damay yëg ci xolam mhm. toog tamit yenn yenn saay mu gis dara mu am num ci xalaatee mhm. xam na man mii du ma nitu falaa falaa mhm. te lu tax ma dugg ci lii du hasard suñ borom moo ko dogal du hasard du loo tëba rek ne na ci sax dëgg est-ce que yaa ngi moo tax ma bëgg gars yi def nànk. Mm-hmm. te kuy wax. Mm-hmm. kuy wax ah, nga wax loo xam ne lu rafet la ci man. Mm-hmm. ndax bis damay bañ mu ñëw nga rus. comme lan rus dafa am looy waaj walla lu bari yaa nga cax nit ñi de yaa ngi leen di cax de. kuy wax ci man xamal li ngay wax ci man. ndax bis mën naa ñëw nga gis ma rus. parce que waali day dem waali day dem. ah waali day dem loolu mooy waali mbay day dem kenn du ko téye. waali mbay ndaw la day liggéey te day dem. macha allah. suñ borom moo dogal ne mission lii la kon da ciy dem ba jeex. Mhm. suñ borom bu jërut lii. yàlla na yéex. musique Sénégal dinañ ko téye suñ loxo. macha allah mais yaa ngi déggante ak waali balaago. maa ma Euh, maa ngi déggante ku ko jege nag. moom laa wax waxuma ku ko jege de maar yaasin ci jëmmam ndax yéen a ngi déggante. moom maar gise nañ ba tàyyi. waaw gis nañ gise ngeen mais gise vite fait la. kii dégg ngeen gisante nuyante mu dem nga dem. mais dinañ déggante. mais déggante goo leen. bientôt di ma gis ma toog maa toog. Hmm. ma koy remercier bu baax ndax tabaski gi jàpp na ci. Hmm? dalaa jox lu bari première jox na ma xar. jox ma xaalis déggal loolu. loolu gaa yi yëguñu ko woon de. gaa yi yëguñu loolu. Mhm. xam mhm. ak leneen ak leneen loo xam ne jëlee naa ko fi si ci ci ci ci ci ndakaaru gi. Mhm. ci barkeb maar la. macha allah waxuma la ndakaaru sax mais international ndax am na ñoo xam ne dañuy toll ba États-Unis yëkkati seen ñaq di ma ko jox. macha allah ci barke maar. ndeysaan macha allah kon man maar. su ma su ma defalutoon dara sax doy na sëkk. Mhm. ndax cofeel bi nga am ci moom. ak cofeel bi ma am ci moom. Mhm. ak ni ma mel ci moom maa ngi tedd. macha allah moom macha allah ci barkeem maa ngi ciy tedd ma macha allah ndax nit fu ne la may yónnee lu ne. Mhm. gëj naa jënd yére gëj naa jënd dàll. ah parce que yi neen da ngaa ñëw euh, Dakar rek euh, changer changer changer changer solin changer doxin changer waxin. waaw lépp mbiru yàlla la. ndeysaan waaw mbiru yàlla du ànd ak pënd tax. macha allah dimbali. Mhm. Ah. ñu bëri tamit wax ni bi ñu sàccee sa téléphone Wally Seck daf la may iPhone 15. loolu dëgg la wala du dëgg. Hmm, am na tamit ñu ne may na la oto. Euh, yooyu yëpp mu ngi ñëw. ñëwagul mi ngi ñëw. kon jotoo ci iPhone 15. yooyu yëpp mi ngi ci ah, jot iPhone 15 bi jot nga ci wala jotoo ci internet yi lu ne la bind. ok. lu ne la ñuy bind. Mhm. mais ci kaw loolu ñuy bind noonu mën naa am loo xam ne mi ngi ñëw nag. Mhm. waaw. Mhm. loolu def na ko ci xelam. te dig na la ko daal. non def na ko ci xelam day ñëw. ah mais digagu ko. am nga yaakaar nag. Marie géej la. loolu leer na. yooyu ñuy wax ñooñu ñëpp du dara ci moom. moo xef ak xippi la. mais moo tax boobu ba tey mënuloo gisante ak Waly. non lu jot yomb. est-ce que yaa ngi ci dox ay jéego pour gisante ak moom toog ak moom. non non ci kenn. waxoo ci ak kenn. damaa bëgg liggéey ba ci kanam. ok ba maar xam ne kii. mu ngi liggéey foofu maanaam yow da bëgg ba mu gisal boppam. mu wol la boppam nga ñëw boppam mu ñëw. <laughs> du man maay jaar ci kenn. waaw man maay ay audience man maay ay déedéet. damay mhm. toog mu lijjanti sama numéro ma kar. suba fekk ma sama kër. ma ñëw ma toog mu toog ñu waxtaan. ma am lu ma ko déey. ndeysaan dina xam ne man du ma du ma du ma. du ma n'importe waaw macha allah. mais gars yi wax naan ay waali de wérul ay waali de lii dafa demoon euh, nu mu tuddati ñu rëfule ko dafa jaay ay butigam loo tax mu mel nii euh, tey ji loolu lan nga ñooñu lan nga leen di wax. loolu c'est pas ça euh, musuma dem fenn foo xam ne ay comme ça ay gaal wala di musuma jee dugg. parce que loolu lañ wax nee nañ da nga doon liggéey après nga jaay euh, atelier métallique bi nga nekkoon dem dugg ci gaal. loolu moo tax nga ñëw xel mi xaw a dem nga jékki-jékki ne da ngay toppandoo waali. non non non non man musuma dugg ci gaal. Mhm. Euh, du ma ma lébu. Mhm. xaw mhm. dugg ci gaal. xam nga nag nit euh, nu ne ku la ku la ku la ku la li naan nit ku la teg bët. nu ne lay inventé di wax. pour yàq uh-huh. sa der uh-huh. ndaxte ki la jiitu uh-huh. ki nga jiitu moom mi ngi sa ginnaaw xam nga dëgg la moom nag moo gis sa oto bi ci kanam rek la ñuy corne kenn du ah, corne bi ci ginnaaw dëgg la man taxaw ma di wax ci ñoom ah, taluma leen yu si bëri sax duma ko dégg dañ ma koy nettali ndeysaan xam nga kon nag nit bu amee jot bay wax ci yow te amoo jotam sax yow yaa ngi si li ngay liggéey di di focus di def li ngay def muy nice nit ñi di la bëgg xam nga. Mhm. xam nga bu commencement bi ñun bu biñ commencé. Mhm. nit ñi niñ doon waxee ak léegi Reug-Reug am na. Mhm. ñu bëri ñu ngi naan ah kii ko jàppale mu dem de. dëgg la ah dafa mën. ah ñii naan pourtant dafa mën. xam nga. mais ñëpp mënuñoo maase bëgg la. Ah, te man ñaanu ma ko yàlla. ñii bañ ñii di bëgg moo gën ci man. wax na ko sax. waaw. que loolu ñuy wax daal du dëgg. mosuloo dem ci gaal du dëgg. jaayuloo sa at jaayuloo sa atelier aussi. kooku xaw ma suma atelier nag maa ko jox sama benn booy laa xool. wóolu ko jox ko ko. yoon wi. Mhm. jox ko ko. ok. tracé yoon wi xam ne yoon wi mën naa ci am lu ne. ma jox ko ko. Mhm. mu doxal. Mhm. dimbali waay ay waajuróom. waaw loolu moo tax. macha allah mais ñiy wax ñëpp xamuñu ma. ndeysaan dëgg la. xamuñu ma. Uh-huh. te kenn nag mosu see taxaw ak man ne ma sa bët bi suuf a ngi ji. Uh-huh. kon li ñuy wax sa ginnaaw lañ koy waxee. ñemewuñ la daal ñemewuñoo jàkkaarloo. xaw ma ku ciy wax de ndax man ñi ma jàpp ne ñoom da ñoo may waxal. Uh-huh. ñooñu man maa leen dimbali. ndeysaan. donte aw ma dara de mais maa leen dimbali fu ma da ma ma jàkkaaroog ñoom wala fu ma dajoog ñoom pikir leen. comme ni ko waal di def. waaw dinaa yëkkati jox la. avancé. yaa ngi wax ci man lu ñaaw. ndeysaan. mais am na mais am na benn waali benn benn waali deux boo xamante ne Bambey la nekk tamit moom nee na moom moo la njëkk a way de. non. moom nee na moom moo la njëkk a nekk waali deux. Bambey amul waali deux man mi. eh am na keneen. invité naa ko fii. Bambey Bambey. Bambey. waaw. yaa invité ku dëkk Bambey. waaw ku dëkk Bambey. non Bambey amul waal deux bu ah am na beneen waal deux de gis nañ ko sax mu tëgg concert yàggul moo dëkk moo nekk fii Kër Massar. nekk ah ok. Hmm. cette con là xool. cette con euh, xam nga yaa ngi tooñ. maa ngi maa maa maa maa maa ngi tuub xam nga rek ni message bi ni mu ñëwee kooku. wuyu ma. Mhm. dëkkam ak Bambey. Mhm. kilomètre la. ah kooku de waxal jàmm la dëkk. dëkku fa te nag bañ sa dëkk. weesut nga dëkk Bambey séeréel ne Bambey nga dëkk est-ce que yaa ngi comprendre. Mhm. moo tax Bambey séeréel. ah moom Bambey séeréel la dëkk. Bambey séeréel la dëkk. ok moo tax Bambey séeréel dina ut sax benn tur boo xam ne dinañ ko ko tuddee. ni ñu koy tuddee. waaw benn tur man dinaa ko fent ñu wutal Bambey séeréel tur wut Bambey tur ndax bu nee Bambey dina xam ne Bambey taax la xam nga du ne Bambey séeréel ndax Bambey taax. ak Bambey séeréel <laughs> bokkul waaw dëgg la. di nga doxaat kilomètre doo egg Bambey. waaw Bambey dëkk bu mag la. Bambey séeréer tamit ab dëkk la mais dëkk yi bokkuñu. kon moom daa Bambey séeréer la dëkk Bambey séeréer la dëkk bañ dëkkam. yow Bambey taax. laa dëkk bi ma taxee dakaar fu ma wax ne fa laa dëkk. Bambey Bambey laa dëkk. kon moom dafa bañ dëkkam. mu bañ dëkkam lu tax su dee Bambey séeréer rek laa dëkk. dëkk ah. moom dane Bambey la dëkk de waxal jàmm. Hmm. daa bàyyi dëkkam ñëw Bambey. tax si li ma dégg si li ma dégg ñu ne ñu ne dafa loué. fa lay jàngal waaw xoolal loolu. mais neel mbay séeréer laa dëkk mais Bambey comme ça man bi ma ñëwee Dakar dama ne Bambey. mais yow doomu Bambey nga. te dakaar laa ñëw dëkk lew na. waaw ne xoolal damaa ñëw Dakar daan ci sama doole. dara samay waajur dimbali képp ku ma tamit. mais gars yi ne da ngaa bàyyi Bambey nag. gaa eh, eh, yi nee nañ instant bi mënatoo gaa yi nee nañ instant mënatoo toog Bambey de. ankañ ndax nee li ngay am fii <coughs> li ngay am dakaar gii nee nañ waxoo ko kenn de. waaw loolu moom dëgg la dëgg la ndax yàlla def na ne euh, biñ ñëwee Dakar ak léegi. Mhm. Euh, liñ liñ am liñ fi am. Mhm. Euh, daanaka yokk liñ daan am ak li ñu am léegi yokk na daal. macha allah. macha allah te bëgg gi nga bëgg maar moo tax nga am ko. te bëgg maar rek a mhm. bëgg maar rek ndax mhm. yàlla suñu borom dafa bëgg dafa bëgg nit ba bind ko. Mhm. def nit mu gën ci nit ñi mu muy li ko gënal. li mu bind lépp nit moo ko ci gënal. dégg la. yow nag nga bëgg mu bë bind leen nga bëgg ko. mais mais début bi nga doon euh, toppandoo maar est-ce que say parents d'accordoon nañ. non parce que man xam naa sa papa. non d' accord kenn amul kenn ku d' accord d' mhm. accord amul kenn benn nit bu taxaw ne ma yow li nga doon def ni d' accord naa mhm. xanaa may def ay pas di def ay pas di def ay pas ba ñëpp nangul mais amul benn nit waxuma la samay pas. début bi jàpp ñu woon ne na nga xaw a dof walla affaire yooyu. waaw ñu bëri na boy bi il est fou. ndeysaan. te c' est pas ça. Mm -hmm. moi je suis intelligent. Mm -hmm. j'ai ban classe nga bàyyee aussi. ban classe nga bàyyee. classe góor gi. cëmm de. te damay liir ah. Uh-huh. damay bind. ndeysaan macha allah. je parle français j'écris. Mmh. je suis n'importe qui. am na boo yoo xam ne ñu ngi jàng ba am bac li nekk fii. néew ci ñoom xanaa nekk ci ñoom. macha allah. loolu mbiru yàlla la. Mm-hmm. suñ boroom mooy dogalee noonu. Mm-hmm. te jàng naa alxuraan football naa. ah yow yow ci ay jaar jaaru waali rek nga jaar di ah! lu ne te loolu nit ñu bari mën nañoo génn ne lii am na lii na lii am na lii am na maa ko mm-hmm. lii am na lii am na lii am na maa ko fekkee. waaw yàlla mooy dogalee noonu quoi. Mhm. waaw nit mhm. koo gis nag ñaar la. du mhm. benn. dëgg la ndax yàlla dafa bind suñu maam Adama bind Awa. moo waral ngay gis ay seex. mais mais mais première fois bi nga gisante ak euh, Waly ci euh, Bass bi nga côté Waly lan nga ko wax parce que gis nañ nga jooy jooy yu metti waaw waxuma ko dara. moom lan la la wax moom lan la la wax. su ma xol moo tooy moom waxuma dara. vogue laa dem. moo wax am lu ma fa wax soirée bi jeex mu woy ma. mu sàcc fa sa téléphone. loolu lépp dal na la fi. tamit mais loolu lépp nag suñ borom xam na ne xam nga man takkuma aussi naanu ma. Mhm. sangu parce que bi ñu sàccee sa téléphone sax am nañu doo wax naan kenn sàccu ko. lépp ay dil la. ay dil te du ay dil. yàlla moo ko jaaraloon foofu ki ma gis. Mhm. ndax ki ñu wax Mor Wade di jaay téléphone Bambey. Ngor Wade waaw. bi may ñëw sama téléphone bi. Mhm. da cee def protège boo xam ne protège doré la. Mhm. xam naa nag si la ko gisee rek nag kii iPhone la mhm. topp ma. te boobu loo yoroon Tecno topp ma rek yàlla tamit def ko muy wërsëgam. loo yoroon Tecno wala. itel laa yoroon waaw. ah itel xam nga moom mu teg ko iPhone. moom mu teg ko iPhone ndax téléphone baa ngay biir te pochette bi ñu ko defal te itel yooyu day am ñetti bët nii. waaw waaw xam nga léegi mu topp ma rek. yàlla tamit def ci wërsëgam. te xam ne man war naa mën a am lu ëpp loolu. Mhm. xam nga. Mhm. léegi si laa si laa si laa si laa ko dugalee fii. fii ci ginnaaw fii nii fii. Mhm. léegi ma ne man est-ce ma wax ak daal di yéeg ci kaw seen xam nga ma wax ak Amady Amady na ma waaw après léegi ma jël affaire bi dugal ko fii nag. ci ginnaaw mu rocc ma ngi concentré wu ci son yi ba fàtte ko xam nga bi affaire bi tas nag may dem. bi ma demee nag ba ci bunt bi laa tëb tëb rek sama xel na si yar xam ma làmb ma dara. ndeysaan. ndekete fàtte woon naa ko quoi. Mhm. xam loolu mën naa dal ku ne. Mhm. loolu mën naa dal ku ne. Mhm. man dem naa fu dugg naa fu yor xaalis bu bëri sama poche. dama koo ñibbi saale. yor sama téléphone dama koo ñibbi. dëgg la macha allah euh, comme ni nga ko waxee début bi euh, say parent nanguwuñu woon am na ñu doon wax ni sax wéroo mais euh, bi nga ñëwee fii dakaar ba am fi say teraanga ba yóbbu ko bi nga demee sa réaction yaay lan la woon première réaction kontaan bi nga demee yóbbu ko xar yëkkati xaas xam naa yóbbaale ah? kontaan ñaanal ma ma dem suma papa defaat noonu yëkkati xaalis jox ko mhm. su may mbokk ma yëkkati xaalis jox leen. Mhm. ku lapp lapp si dëkk bi ma yëkkati xaalis jox la. Mhm, parce que ñu bëri nee nañ waa Bambey dafa yëwén. waaw mhm. kii nag ma yëkkati dara jox la di sañsalu mool. di toog di wax nga dem julli ji ñu topp la naan waali waali waali. très bien nga yor nga bës bi may wax ak nit ñi. ci kàllaama yoo xam ne dañuy xam ne kii haut niveau la. mën nañ koo jàppee dépassé yeneen niveau mën nañ koo jàppee dof sax ndax ndax ni mu doon ak sëñ Touba ak gars yi. ni mu defee yi. Mm-hmm. dafa bëggoon yàlla suñu boroom ba génn këram wéet ci àll bi. Mm-hmm. di jaamu yàlla. ñu koy woowee dafa Mamor Anta Sall bi. Mm-hmm. parce que niveau ba mu la. moo waral mu bàyyi ñun ñëpp dem ba sa àll ba dafa jaamu borom. ba am na ku ñëwoon ci moom ne ba tiim ko ne ah ndekete dof bi du dóore. xam nga léegi nag yow doomu aadama yi mën ngaa dem ba toll foo xam ne ci niveau sa xel day sut yu bari nit mën na laa mag puuf mën na laa njëkk ci àdduna yàlla da lay cëral loo xam ne mën ngay wax nit ñi sax te du dégg kàllaama yi ngay wax ak yow ndax da ngay lu ñëw ak lu ñëwagul gis loo xam ne yow ñëwagul sax macha allah macha man su ma toogee yow loo ma wax ak loo ma xam ndeysaan sa réaction rek mën naa cee xamee lu bari macha allah loolu moo tax am na ñoo xam ne fu ma leen xoolee ñu sëgg loolu mooy intelligence macha allah man su ma ne la jàkk nga ne ma jàkk nga sëgg mhm. mais nga ne la moo tax demuloo Zénith. Zénith bi Bambey moo tax demul. mais déposé woon nga visa ba pare kan moo la bëggoon yóbbu Zénith Matar Diop wala. Matar Diop waa suba teel. Matar baax la dem naa fu mu yëkkati xaalis cent cinquante mille même. Mhm. Mhm. ñu waxtaan foofu xam nga. Mhm. mais Zénith bi toog Bambey rek. naan tey ma ñëw suba ma ñëw xam nga. Bambey neex rek nga toog fan si wër la. nga toog ba demoo Zénith. ma toog ba déwuma. <laughs> macha allah ok euh, démb tamit ñoo ngi gis euh, benn vidéo euh, Mbaye Kouthia mu ngi ko dugal ñuy wax ni yow danga bàyyi ci Bass Thioung mooy problème bi. non du bàyyi du bàyyi. parce que tamit ñi nga doon àndal yoroon naa si sa numéro benn ménageur dem bi ma ko woowee pour jël la dafa ne ma carrément nekkatuma ménageur lan mooy problème bi. waaw xam nga liggéey. Mhm. kooku euh, du sama ménageur. mais bi ma ñëwee Dakar. Mhm. xam nga sama ménageur man nekkul fii Dakar. Mhm. léegi man su ma ñëwee Dakar. am ñoo xam ne dama daa am lu lu ma fi indi woon ci ñoom. Uh-huh. muy seen 100 pour cent ambiance yu ñu doon tëgg. dëgg la mënoon naa kaa tëgg ba pare. comme ça Mm-hmm. suba ma ut fu ma ne. Mm-hmm. di doxal. Mm-hmm. est-ce que yaa mais bi ma ñëwee xool ne Dakar man am naa leneen ak leneen ak leneen mission yu ma fa dox. te ma xool situation bi ni mu demee bi ma ñëwee ñëw. niñ doxee ak man ah ma xam ne ñii mën naa nekk ak ñoom ma nekk ak ñoom ànd ak ñoom. ci mission bi mais mission day dem ba par étape la. avancement ngay laaj par étape la. te man jëluma sama yoon bii di falaa falaa di ñii mhm. man damaa bëgg a nekk ci yoon boo xam ne yoon wu leer dëgg la wóor dëgg la ménagère dafay am ay qualité yu ñuy xool ci moom mhm. kon ki la yoroon amul qualité non du ménagère ndax dañ doon ah, ànd nii ménagère la woon de waaw dañ doon ànd moom lañ doon woo pour jël la waaw waaw ma ah. rek boobu sama téléphone bi yàqu na ma mhm. jël samay coordonnées sàcc nañ ko ma jël samay coordonnées ne ko léegi ku la woo ne ko kii mooy sama ménagère. xam man fu ma toog di naan ne yow yaay sama ménagère. Mhm. Mhm. xam ku la woo wuyu ko ne ko nii ngay doxee nii ngay doxe mais bu doon ménagère nga xam ne kii bi haut niveau la te bari nay branche te aussi tamit intellectuel la xama nga ak yeneen ak yeneen ak yeneen dina la mën a sauvegarder si yu bëri. Mhm. day toog sax kon ñoom Matal Diop ñi ni def rek xam nga. toog lijjanti si Diop Zénith bi lijjantil ko lépp. xam nga. Mhm. tegal mhm. xam nga ne mel Matar Diop la. dëgg la dëgg la Wally nu mel Ndiago la. Mhm. yooyu nag man. yooyu nga bëgg. ndax man foofu mais mais waroo tëb tëb nag bàyyi leen noonu. parce que bi nga bi nga ñëwee fii tamit ñoom ñoo la dalal du dëgg démb ma kii bi ma ñëwee ñëw Dakar ba teg samay bagage kër Bass Thioung laa dem nuyu ñoom ñëpp. ok. ñëpp jàmm laa seq ñoom mais liggéey dafay am fu muy toll foo xam ne. waaw euh, évolution rek la la la. kon instant bi da ngaa évoluer. comme comme ça. bokkatoo foofu quoi. comme ça Messi. waaw. nekkutoon Barça. Mhm. léegi Messi demut ba génn Barça dem feneen. Mhm. Chris nekkutoon Real. Mhm. demut ba génn Real nekk waaw noonu la rek. kon loolu mooy sa niveau yow dafa de maanaam yow sa niveau dafa dépassé yenn niveau yi quoi. waaw nekkatoo ci yooyu. mais gars yi sa nekku ji woon tamit di la exploité tamit benn instant man damay liggéey foofu ma te lu ma tabax kër dugal fa sama yaay macha allah soxna bu mel ni soxnaay dara xale bu xees pecc njool ci kaw ah tee noir yi nañ la mere de non te fan sa tee noir nga ëppale nga ne la nga ne nga takk yow xaatal ba dégg bu ma bu ma bu ma bu ma bu ma jaxase ah yaa ko wax jéey yaa ma seede yaa wax de damay xoolee rek. Mhm. kon yow daal li waali def rek ngay def. waaw bu xees pecc. bu mel ni soxna ay dara. mais loolu est-ce que dina yomb. loolu kese la nag mais du question ay tey noir yi ngi man tey noir yi samay xarit lañ. mais daal bu xees pecc daal ngay wër. kon xale yu jigéen tey noir yi lay topp kon nañ la bàyyi. non dégg naa xale yu jigéen dañ lay topp. lii dégg naa waaw loolu moom. dégg naa xale yi jigéen ñi commencé nañ di la topp waal de. loolu moom suñu borom moo ko dogal bi bi ma nekkul ci lii sax xale yi dañ ma daan topp asamaan ak ma nekk ci showbiz bi. mais yaa ngi moytu. damay moytu. waal de sa yaa ngi moytu. non damay moytu. yow bul wax dara damay moytu. mais amuloo benn problème ak euh, ñoom Bastou ñoom euh, Cheikh Ramdan parce que parce que ñoom Sidi ñoom Zef ñoom Zé ñoom parce que Zubairu tamit dañ doon gis tout temps daf lay dugal statut di leen jaajëfal la yóbbu studio et tout liggéey lañ seqoon rek mais liggéey boobu war woon a jeex nag parce que ñoom ñoo la dalal tamit nag waal de nag nañ waxante dëgg nag non mën na nga nekk si leneen mais continuer ak ñoom du dëgg maa ngi maa ngi maa ngi continuer ñoom maa continuer ñoom fu ñu tëgg suñ ma wooyee damay ñëw. ok. xam nga mais sa boo demee nañ lay fay comme ni nga doon demee ci kiiwu wu bas dañ la doon fay. yow nañ bàyyi mu sedd rek. non dañuy waxtaan mais lépp dañ koy waxtaanee non. ah dañ la doon fay wala. bul xuus foofu. non dañuy waxtaan rek. kon kon cela veut dire que fayu ñu la woon. non jàppale ma ñu ñu. non non dañuy non waxtaan la. ñu ñu jàll foofu affaire la quoi. kon kon kon li may wax dëgg la. kon y' a problème entre vous. affaire la non problème moom amu ko. ah bien sûr. mais comme ça ci wàllum fay ak wàllum yooyu laa bëgg nga. close kon yow gars yi dañ la doon exploité. mais mais mais mais. kon yow gars yi dañ la doon exploité. non non. kon yow am xel bi ngay wax kon amoo xel <laughs> ah. am xel taxut ma ma ma def li ma def nii. yow ko nel da nga maa bëgg a cuq rek. ah ma la de <laughs> cuquma la pour nga wax dañuy waxtaan rek. loolu bu ma la ci doon xuusal fi la ñuy fanaan. non non parce que non non non non parce que non parce que nit ah ñu la xamee boo demee ba jóge fa am na lu tax te sénégalais yi war nañ war a mën a xam parce que tey sénégalais yi mën nañ jël toor bi teg la ko fekk du yow du dëgg. léegi wala ñu jël toor bi. dem teg ko euh, Bass Thioung fekk du moom. Mhm. jógewut ci Sidi Diop. ñëw ci wàll Seck. waaw. est-ce que njàpp daa waye di. waxuñu wàpp dafa waye di de. waaw mais xam nañ la nii ma doxee xam nañ la tax njàpp jóge fa. du dëgg nii ma doxee nii. voilà nii ma doxee nii moo ma arrangé ah. moom ni ngay doxee léegi. nii may doxee léegi. moo ma changement bi changement moo ma arrangé. waaw ah. moom laa war a doxee moo tax ma koy doxee. kon daal léegi mën nañ la jóge nga te mënumaa taxaw nag di ci expliquer. nga ci loxo yee. parce que man duma yaa ngi ci yeneen loxo comme ça duma booy boo xam ne. léegi instant bi fan nga du ma booy boo xam ne da ngaa jógee nekk booy boo xam ne bëggoo dara. Mhm. wala booy bu waaye. ñu bëgg la jàppee daf maanaam. man boo ma gisee rek da xam ne man damaa am hygiène de vie man. c'est vrai. damay tëdd fu nooy di lekk lu baax. xam naa seen kër. waaw damay ah, tudd fu foofu jaru nga ci xuus ndax man xam naa la xam naa ne noobul nga waaw xam naa sa famille papa xam naa sa famille yaay très bien voilà te foofu xa gis nga man rek maa ci mel ni mhm. mais ay intellectuel ñoo fa ne xam nga ñi fa nekk ñëpp papa moo a jàngal CI ba CM2 ba CM2 mi ngi doog a retraité intendant la woon mhm. lycée Bambey xam nga ak sama papa Pape Fall xam nga mi ngi Sénéra ñoom day xujja Fall waaw ñi ci nekk ñëpp mu Kumba Fall mi ngi Saint-Louis xam nga day jàngale mm-hmm. ñeneen nag ñeneen nag ñeneen am na ñoo xam ne ci ministère lañ nekk mm-hmm. xam nga kon man je suis pas n'importe qui yàlla moo dogal ne ci lii laay ne mm-hmm. moom ma nekk ci rek dëgg la mais ku jàpp na yow yaa ma ëpp xel wala yaa ma ëpp dayoo wala famille bu riche laa bokk mais lii la yàlla dogal ci man dëgg la ñoom ñëpp su ma leen yóbbu woon seen suñ kër duñ toog. c'est vrai. kon man kenn mënumaa jaay ay xel. Mhm. wala nga fon ne yaa ma ëpp xel wala man je man damaa damaa mel nii booy waaye waaye ni non mhm. man fu ne mën naa fa dem fu ne mën naa faa toog wax naa la ko. Mhm. mën naa dem ba pale toog fa di wax ak président. muy wax ci xel ma koy tontu ci xel. macha kon ku jàpp na rek yow mën nga maa nax yaa ngi nax sa bopp. Euh, instant bi lan nga bëgg si sa diggante ak Wally Seck. non Wally Seck nga bëgg si yéen ñaar toog maak waxtaan kese. kon mat na ba pare gisante bi c'est déjà réglé mais la ma tax Wally yóbbaale wu la. non boobu maa ngi Bambey. Mm-hmm. Mm-hmm. mais yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mi ngi ñëw. c'est pas mm-hmm. la fin du monde. waaw mm. mais dafa am loo xam ne liggéey boo xam ne dañ faa toll. Mm-hmm. am boo xam ne dañ ko xam nga wàllu day bëri na fi. dëgg la te maar day calculer. Mm-hmm. mais am na loo xam ne nag bu ñu demee ba xam ne yàlla moo def lii. Mm-hmm. lu ñu def ñeneen ñi ci ginnaaw dinañ xam ne nii la demee. waaw. macha allah xam nga wàllu bëri na fi. macha allah la. mënoo tëb a jël benn wàllu day yóbbu ko. xam nga si des. mais nit moom dala bëgg moom. moom xam nañ ne waale xolal voilà jox boobu. loolu mooy géej gi am na ndox. macha allah yaa ko liggéey nag. macha allah mais balaa ñu jeexal nag foog ñu may foog nga may ñu benn acapella tamit mënul ñàkk de. foog nga may ñu benn benn benn benn benn bu sew rek. temps sama way wi moom dama koy jaay. ah eh eh, eh, eh temps yi moom woy bi dama koy jaay. <laughs> jee dégg loolu temps yi dama dama génn ci facette yi. nee na nee na nee dafa dafa dafa da nga da nga kii. damay tëgg concert gars ñëw ma woyal leen tëgg orchestre ma ne dóor ba mu ma ne nga yuuxul ma ne nga yuuxul ma benn ma ne. sama frère nga yuuxul ma benn ma dégg. mënoo ñaar yuuxul ma benn rek nag. xoolal siifal rek xoolal siifal siifal ma. doo ma siifal. ah. <coughs> non jaaga bi xam naa jaaga bi ngeen wër rek. Mm, waaw. lu tax ngeen bëgg jaaga bi noonu. parce que dafa neex. te man dama gëj boo ko wayee nit ñi boo ko wayee nit ñi dañ ci sentir seen bopp seen seen seen seen seen xol yi di neex moo tax. moo tax. forcé ngeen ma rek te sama woy wi yow laa xamul lu ma lay def rek. waaw. lu baax li mu def fii musuloo ko ko yéene ku fi dee rek ñu wax samba bay ma jaale la dil na jooy ayo ndeysaan ànd ak waa këram toog di la jooy ndeysaan mbaa xam nga mi ngi ci ndox jéggi ndox te du lab kon day xool xel xool sa xalaat ak yéene bëri na basi ni la ñone ñu la xool nooy dundee sa moroom danga ko yéene am danga ko wóolu bu ko bàyyi ba mu dem yow ngay jooy danga ko yéene am danga ko wóolu bu ko bàyyi ba mu dem yow ngay jooy ba mi dundu meloon nii ak moom bu ko bàyyi ba mu dem yow ngay jooy meloon nii ak moom ci àdduna ah, bi mi dundu ci àdduna nga dëkke wax ci moom lu ñaaw ci àdduna musoo ko yéene mu lu baax ci àdduna tey dem naa nga jéem a wax ci moom lu baax ay waay xam naa xamoo ki yaragal defet nga koy xool mu lay xool doom jeg baay ba balaa ko jàgg moomi macha leen di jooy noonu la ñu noppaloo yi waay ndeysaan seen toogaay ba ndeysaan si seen waaja muhammadu rasulilaay ayo ndeysaan ndeke jéggi ga kiraay déggal lii mais mais mais Wally de voix dafa mel ni fan yi da nga ko da nga commencé ko defar de jox ñu jox ñu secret bi fan yi dafa mel ni da nga commencé waat defar voix bi de ah duggaguma studio sax damay kon boo duggee studio dëkk bi yëngu de. damay déglu nii rek di wayandu ba léegi duggaguma studio. macha allah. fan yii moom voix bi moom macha allah yaa ngi koy travailler. mais nag bu yeboo ngeen pare ndax suba. Hmm. war naa dugg studio. suba waaw suba. te tamit maa ngi waajal Gambie. ah da ngeen am Gambie. waaw ok am benn concert bu mag. boo war a tëgg foofu boo war a tëgg. Hmm? dama leen cay musal tuuti. kon nag commencé def ay tournées yii. ci wax ji lañ commencé quoi. ok. macha allah gars yi ñu ngi wax yow yaa ngi liggéey. waaw noonu la. ok merci beaucoup Walide eh, ah Wali Bambey ah, ñu ngi lay remercier bu baax di la wax nga tàggatoo ak internet yi. waaw maa ngi euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di di di di di ñaan daal Sénégal jàmm rek ah, jàmm sax fi xam di nuyu Mor xam nga borom téléphone yi ca Bambey. di nuyu El Hadji Dia borom Bambey. waaw. Mhm. ku baax. Mhm. ku ma bëgg. ku ma yéene. day yëkkati xaalis bu bari mhm. jox ma. xam nga di nuyu El saw Sow xam nga di nuyu El fay Faye. la Bambey lay liggéey ku am jom. ku nangoo liggéey. maa ngi koy nuyu di nuyu Pape Faye. Pape Faye Alla Faye doomu euh, doomu Mbaye Faye mm-hmm. ak ak ak kii euh, kii euh, Mbaye Faye ak kii Aïda Ngom waaw kooku baax la tamit si man macha waaw day sonn ci samay mbir lu bari da ciy sonn macha waaw di nuyu sama yaay Fatou Faye moom dafa am ci lum laal sax ci faatu bi mhm. Fatou Diaga mhm. Ndeye Fatou Diaga mhm. moom dafa laal ci Ndeye Fatou Faye la tudd suma yaay Fatou Faye waaw ah, ma ko nuyu bu baax <laughs> ah, di nuyu waa sama tante yi nekk Bambey ñoom Ami fay ñoom na koy fay euh, ñoom kii Absa Faye xam nga di nuyu daal suma frère yi ñoom euh, Fallou Mbaye xam nga di di nuyu daal euh, ñoom Bascum. Uh-huh. ñoom Sibiru. Uh-huh. ñoom Zef. Uh-huh. ñoom Sidi Diop ñoom Randaan. ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. ah di beral nag nuyoo muy mariage may sa bigé. ndax lépp moom la <laughs> ci barkeem lañuy ñuy yàlla yàggal ko fii. gën a yokk yoonam. amiin amiin amiin waaw. ok merci beaucoup di la nuyu di la di di la jaajëfal. Euh, merci beaucoup merci beaucoup Walid ok euh, chers internautes et amis fidèles de Sénégal set voilà tey euh, loolu lañ leen indiloon ñu àndoon ci ak. baa mbay ñu leen di jaajëfal di leen remercier ba beneen yoon incha allah.